Bonjour, je m'en vais vous faire lecture du communiqué 137 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce jeudi 16 juillet 2020, qui a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1173 tests réalisés, 112 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,55%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 84 cas contacts suivis par nos services, 28 cas issus de la transmission communautaire et répartis les zones ou localités suivantes. Rufisque 3, Rufisque 4, pardon, Mbao 3, Mamel 2, Mermoz 2, Wokam 2, Velengara 2, Cité Impôt et Domaine 1, Grand Dakar 1, Kaulach Kër Massar 1 Mariste 1 Parcelles Assainies 1 Pikine 1 Pout 1 Sangalkam 1 Yombol 1 Ziguinchor 1 et zone A1 130 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris cas sont admis en service de réanimation. Trois décès ont été enregistrés ce mercredi 15 juillet 2020. L'état des autres patients est resté stable. À ce jour, 8 481 cas ont été déclarés positifs, dont 5735 guéris, 156 décédés et donc 2589 sous traitement. Le ministère de la Santé et de sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un bon rétablissement aux autres encore dans nos le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective et rappelle au passage la nécessité absolue de respecter le port de masque, la distanciation physique d'au moins un mètre dans les lieux publics et rassemblements, le lavage fréquent des mai tout en incitant aux personnes ayant ou souffrant de certaines maladies de respecter le traitement et les rendez-vous. Aussi, encourage les femmes enceintes et les femmes ayant accouché récemment de respecter les rendez-vous et de maintenir toujours les enfants dans le calendrier vaccinal conformément aux directives du programme. Je vous remercie de votre attention. asalaamaaleykum mbokk yi ma jottali leen communiqué bi bàyyeeku ci ministère de la santé et de l'action sociale tey alxamis fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet bi ñu nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat yi jóge ci laboratoire yi yi may waaj a lim résultat yi nii lañ tëddee ci junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñetti test yu ñu def téeméer ak fukk ak ñaar ñoo ci positif ci ñooñu juróom-ñett fukk ak ñeent ñoo ciy cas contact mooy ñu jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngor bi ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo ci ka communautaire mooy ñi nga xam ne dañoo jot ci doomu jàngoro ji te nemmeekuñ fi ko jëlee ci ñooñu nag Rufisque am na ci ñeent Mbao am na ci ñett Mamel am na ci ñaar Mermoz am na ci ñaar Wokam ñaar Vélingara ñaar Cité Impôts et am na ci benn Grand Dakar am na ci benn HLM Grand Yoff am na ci benn Kaolack am na ci benn Kër am na ci benn Les am nañ ci benn parcelle Assainies am na ci benn Pikine am na ci benn Pout am na benn Sangalkam am na benn Yëmbal am na benn Ziguinchor am na benn Zona am na benn téeméer ak fanweer si ñu entré woon wér nañu bés ni tey bu ci yàlla àndee dinañu génn fanweer ak juróom-ñett ñu ngi des ci réanimation yi ba ñett ñàkk nañu seeni bakkan si bésu démb alarba fukki fan ak juróom ci weeru juillet yi ñu nekk ñeneen ñi des ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk bi Sénégal amee feebar bi euh, bi mbas mi duggee Sénégal jot nañu woñi juróom-ñetti junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak benn doomu aadama ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu juróomi junni ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom wér nañ si téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi jaal ñi nga xam ne dañoo jot a ñàkk seeni ñooñu ci feebar bi di ñaax di ñaanal aussi ñi des ci hôpital bi yàlla may leen wér ba ñu génn ak jàmm ak salaam ministère de la santé de l'action sociale mu ngi fàttali askan yi ñu gën a sàmmonte ak digle yi ñuy joxe ci digle yooyu nag ñu bañ a fàtte masque yi nga xam ne war nañ koo jëfandikoo bés bu nekk saa bu ñu demee ci bërëb wala fi nit ñi di tase wala lu mel ni marché aussi di fexe ba képp ki nga xam ne yaa ngi janook moom mu mo seen diggante lu mot té lu mot euh, metre dox seen diggante nit ñi di sopp loolu di raxas seen loxo ministère la santé di fàttali aussi ñi nga xam ne dañoo yore di sooxaale yeneen feebar yi di jël seen garab di dem ci seen rendez-vous ni ko seen docteur yi digle di fàttali jigéen ñi wérul aussi wala ñi nga xam ne ñu wasin bees yi di dem ci visite yi ni mu waree bañ a fàtte xale yi nga xam ne aussi ñu ngi ci programme de vaccination te war nañu dem di jël ñàkku yi ni mu waree ni ko calendrier vaccinal bi tëralee ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam